asalaamaaleykum mbokk yi sàn Allo TV man Daalu Ndakaaru maa ngi leen di nuyu yéen ñu sant Ndiaye Seck faati Fati Thiam waaye mi la nekk rek man Daalu Ndakaar maa ngi lay nuyu ayca sud Sud Quotidien ñu daal ne Idrissa mi ngi entamé li nga xam ne mooy second touram waa Ndamal Kajoor moom gannaaw bi ko Macky Sall dóoree premier tour mu leer na bàyyi campagne bi ta noppalu Idi noppalul waxuma ko Quotidien ko wax su ma jógee Quotidien damay daa dem ci li nga xam ne la turbine ñu def l'impunité qui dérange l'Amérique ah Donald Trump lu ko war a déranger nag ci réew mi fii waxuma ko yéen a kaayu bugaan gee danee ko wax su ma ci la tribune damay dem ci Walf Quotidien Walf Quotidien ñu def insuffisance rénale au Sénégal la misère est une affaire de gros sous maanaam nag gis nga ñi am insuffisance rénale war nañ leen jàppale ndax feebar gi daa laaj xaalis bu baree baree baree bare pour nga faju ñi nga xam dañoo am feebaru ren daal maa di ñaanal yàlla leen yàlla jox xaalis bu bare ndax ñu a faju su ma jógee ci Walf damay daa dem ci quotidien quotidien ñu def le second tour de Idi waa Idi ndaamal Kajoor second tour bi pour lan la Idrissa Seck li ngay xoos di xoosaat jeex na Macky Sall la dimanche bee ñu génn le 24 février jël bi nga xam ne moom la bàyyi Amadou Sall kon Marème Faye daan la ci Sénégal ñëpp gis nañ ko leer na Idi mbaam mi wàccal mbaam mi nga yeeg baaxul de su ma jógee ci quotidien damay daal dem ci pop pop yu def idi réclame toujours sa victoire confisquée manam ndamal kadior batay bayiwul de mi ngi ne ñap rek pour mom dafa gagner waaye dañ ko foqati ci mom waxuma ko li nga xam moy pop moko ko wax suma ma ci pop damay da dem ci l'observateur l'observateur l' ñu def ma di quitte kit l'assemblée bàyyu kharim nya jóge na assemblée delo na ay bagaasam dem na ni Moustapha Niass am say keuyit say big say kaka, man di Kenya, le grand saint talib Serigne Saliou bi defatuma député Bayina. ah Baye Khadim de wax lolu du samay wax mi ngi ci l'observateur su ma ci l'observateur damay da dem ci batay enquête enquête yéen a ñu def Idi s'explique wa Idi la ngay expliquer mbokki Sénégal Idrissa Seck ana ay mbokam nañ ko wax na bàyyi na tok te muñ te japp ci yalla waxumako enquête yéen a ko wax enquête yéen a ma daal dem ci libération libération ñu def retour sur la traque des ramifications à Dakar la DIC encercle la mafia nigérienne à Ouest Foire maanaam DIC mafia bi nga xam ne nigérien yi def traque jàpp xale yi di rey def traque humain dig encercler na leen fee ci Ouest Foire Ouest Foire ngay toj jamono ji waxuma ko li nga xam ne Libération ko wax su ma jógee ci Libération Dakar Times Dakar Times ñu def gros retombée financière ah République du Dubaï président Dubaï borom Dubaï teg na tànkam ci Sénégal yaakaar nañu nag fi mu toll nii ay fruits yu am solo dina ci wad ñëw fii ci Sénégal cee Macky Sall

la fin d'un compagnonnage s'annonce maanaam ñaari xarit yoon ànd bàyyante nañ kee nga xam ne mooy colonel Kébé ak sa Seck mi fi amoon ay ñol-ñol bi campagne bi jeexee ñoom ñaar fi mu toll ni dootuñu laale famille waa Kébé nee nañu nag Idi daal li mu def du yoon ndaamal kajoor ndaamal kajoor waa famille kebe nee nañu yow tegoo ko fenn ci yoon li nga def waroo ko woon def ba tax na nee ñu seen doom seen xarit seen papa Kébé bàyyil sa Seck waxuma ko li nga xam direct info moo ko wax su ma jógee direct info damay dem suñu làmb suñu làmb ñu daal def Modou Lo Eumeu Sène ah ay Modou yaa ngi jóge ci bàll barki démb cool yi topp la ñu naan jàppal bàyyil nga jóge ci bëgg a dal ci Eumeu Sène Modou li ngay def ma daama la de baax na sunu làmb yaa dem stade yéene kaay Sadio Mané enterre le Bayern Messi bouffe le Lion mbokki Sénégal déglu leen xew-xew am na fee nga xamante ni mooy Nord Foire ak westu Foire pont passerelle bi nga xam ni moo nekk après SDE po baa ngay xar de pont bi léegi mu daanu kenn defaru ko pont baa ngay xar te loolu bis bu fa waddee dina jur jéye Ouest Foire noor Foire kenn lekkatul passerelle baa ngay xar passerelle baa ngi xar de caaw ba